Abdou Salam Mbaye coordinateur parti mi ji de Thiaroye Kaw dañu ñëw teew tey jii nii fii ci Thiès pour donc accueillir euh, son excellence suñu président Macky Sall vraiment di ko wax donc euh, soyez les bienvenus à Thiès te ñu yaakaar ni ñëw bu am njëriñ lay doon ci waa Thiès yëpp nag vraiment gis nañu tey euh, avancée économique bi nga xam ne nii tey Sénégal yëpp ñu ngi ciy teg seen bët kon nag ñu koy wax dikkal ak jàmm nekk ci gannaaw donc le président Idrissa Seck vraiment ñëw dooleel ko lool pour que wan ne ànd bi neex na mburoog soow mi nit ñi nga xam ne dañoo yaakaaroon ne forox na ñu ngi leen di yaakaar ne mën nañ ko ba lekk ba léegi foroxagul dañ koy dooleel parce que xam nga kilifa moom bu doxee gëstu gannaaw gis njabootam rek ñëpp juboo doon benn accompagner ko loolu doole la te mbooloo doole te mbooloo mi mi ngi fii defe naa Thiès dañ ko doon uh, am xel ñaar waaye defe naa le président Idrissa Seck moom moom Thiès. xam nga bu fekkoon dañuy dugg sax di fëgg bunt bi wala ñu koy wuti mën naa jafe waaye mbooloo mi ñoom ñoo génnal seen bopp parce que lii nag le président Idrissa moomal boppam la. waaw euh, am nañu yaakaar ci ñoom ah yaakaar ci ñoom moo di tey jii ñun ñëpp xam nañu donc la population sénégalaise donc est jeune tey jii lépp loo mën a def te dooleeloo ndaw ñi liggéey bi dafay xaw a des. léegi nag bu fekkee ni tey kilifa yi yàlla def nañu dimbali nañu ba ñu teel a comprendre loolu ñoom teel nañoo comprendre que ni. defe naa lu waay di def rek def ko ci ndaw ñi moo gën parce que ndaw mooy avenir ëllëg te defe naa nag boo leen xoolee démarche bi ñu am vraiment démarche bu aw yoon la parce que ñi gi euh, euh, tenir en compte donc euh, taxawaayu ndaw yi ak donc avenir u ndaw ñi. honorable Mariétou Dieng vice présidente parti Rewmi département de Keur Massar. bon li ñu ci wax rek mooy coalition Benno Bokk Yaakaar am ay leader yoo xam ne leader yu mag ñu responsable ñu ànd ak dal ànd ak njaboot gu dal ba pare yar leen ci dal ak jàmm ak salaam. donc bu ñu wootee tey ñu war a accueillir président Macky Sall day jaaru tey ñu ñëw wan ko ne ko njaboot gaa ngi nii les jeunes du Sénégal les jeunes de la région de Thiès qui sont conscients dans ce pays là on ne peut rien la paix la stabilité incha rabbi ñi ñuy woo ci xeex ak ci leneen xam-xam mu daañu ñëw li ñu bëgg mooy jàmm ak salaam te incha allah on va gouverner dans la paix et dans la stabilité incha allah. ku ne jigéen ne jàmm ne jigéen ne salaam moo tax ñu ak man ñëpp xam nañ lañ leen fi indi fi instant bi mhm. kenn fayu leen dara. dañoo xam ne ko Idy moo moo xewle Macky Sall moo xewle mu ne seen biir xol loolu yàgg na te démb tey doog fu ñu leen woo ñu wuy leen am ñoo xam kenn woowu leen fi la ñu fekk si biir Thiès te jóge Dakar donc loolu lu yàgg la démb tey soog a ñëw xam ñu lu ñu ñor jàmm ak salaam la ane bi ñu nekk année wu jàmm ak salaam la ku woote leneen ñun xamuñu ko li ñu xam mooy jàmm salaam jox cër suñu kilifa diine yi ak suñu ay njaboot loolu dong leneen di wax incha allah rabbi on va vers l'émergence et on va y allah bon Mouride Ndiaye ñëw ak le mouvement M3D muy mouvement dëggu dëggu dëggal derrière le président Idrissa Seck bon ku si nekk xam na Thiès ak président Idrissa Seck muy fiefam doonte nag fiefam sax buñ wax sur le plan ñun nag ñu nekk di liggéey derrière le président Idrissa Seck le président Macky Sall war a ñëw fii tey ñu ànd le président Idriss pour teeru ko. effectivement tu as bien dit les jeunes il dit la politique ba parler vraiment des jeunes tey jii ku xool mobilisation bi depuis 14 heures ñun ñu demuñu nekk fi di xaar le président il fait presque 19 heures cela explique qu'on est avec des jeunes très engagés loolu moo ñu permettre ñoom ñu toog. ànd ak ñun bu doon mobilisation boo xamante ni élargie maire yeeg yooyu yëpp nga gis ko mais jeunes yi la plupart ngay gis cela explique que la population thiessoise est avec le président Idrissa Seck mais la population thiessoise est avec le président Macky Sall